loolu yéene bu rafet na ndax yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax ndax bi ñu ñëw fii en 2014 coow li bëri ñu yàlla mayee de 2014 à 2021 yàlla may ñu diriger toutes les réunions du conseil municipal benn yàlla may ñu Nioro avance fii tey loolu sant yàlla la sant waay Nioro yi sant aussi les conseillers municipaux comme ñoom nan man lañ désigné ma nekk candidat ci bennoo bi dama koy accepté bi te rafetlu pour l'intérêt de Nioro ndax amuñ fenn fu may Nioro Nioro lañ am Nioro mooy dërëm wax nga tamit ne maire normalement buñ ko tapee dafa bi compte tenu sa réalisation ndax mënoo ko bañ sama lépp Nioro mooy sama lépp dama tey nandu pour la ko ni de Nioro tey yaa koy nangu yaa koy nangu yaa koy nangu yaa koy nangu les chantiers yi ñu war a terminer en 2021 ak les chantiers yi ñu war a def en 2022 loolu doy na ñu tax mu tax ñu war fi ne pour loolu sotti ndax bailleurs yi loolu la ñu óolu am ñoo xam ne tey damay recevoir sama bureau mu nekk ay de fonds mais dañuy am bu ñu ñëwee loolu dafa am solo. c'est bon hein. banque mondiale moo ci financé moom wax le programme d'appui aux communes et animation marchés. ñun ci ñu 2022 ci budget bi dañ ci prévoir millions pour le marché bi ak 50 millions pour l'État gis nañu Nioro tamit euh, ci transgambienne bi la wax nga problème mu sécurité euh, waxoon nañ fi mbirum euh, commissariat.